mbaa yéen a nga ca ndakaaru ba Qatar fépp yëngu démb ginnaaw ndam li nga xam ne gaynde Sénégal yi am nañ ko ci kaw Équateur wuli leen ñaari bal ci benn maa ko wax de bés bi la journée gu ne Aliou Cissé kay démb jaloore dëgg la ñu def ci réew mi ak ci bitim réew ginnaaw ndam li ñu amee jàll ci huitième de finale yi ginnaaw ndam li nga xam ne moo soob mbégte gu rëy askanu Sénégal gépp nekk fi ci ndakaaru ci biir réew mi ak ci bitim réew Aliou Cissé ci bés bi la journée ginnaaw jaloore gi jël nañu ndam li jagleel ko Pape Bouba Diop Bruno Metsu Jules François Bocandé ak Sadio Mané yëglekaay groupe immédiat bi ne li gaynde yi def ni démb def na ñaar fukki yoo xam ne li daal amu fi déedéet te sunu gaynde Sénégal yi dimanche ñu dëgmal nag Angleterre la ñu dajal ci huitième de yi libération n'est pas de pour gaynde Sénégal yi ginnaaw ndam lu ñu am démb ndulli waa ñaari bal ci benn Kalidou Koulibaly ne jongante démb bi daal mënuñu ko woon ñàkk mukk ndax il par la force ñu am ci ndam ba noppi nag jël lépp jagleel ko Pape Bouba ay rongoñam mënu koo tée ginnaaw mbégte gi ko gane si yëglekaay bi ne mbégte gi ko yemu rek ci gane Sénégal yi démb ndax Ndakaaru ba Ndar géej Tambacounda ba Ziguinchor ak fépp ci réew mi kontaan continué dëgg nag la amee l'observateur ne gane Sénégal kay démb ñoo duma waa Équateur ñaari bal ci benn jàll ci huitième de finale te Angleterre la ñuy dajal jongante bi nag dimanche gi mu dëgg ma la juróom-ñaari waxtu ci ngoon li ñuul ci soow mi kay mooy Idrissa Gana Gueye suñu jongante du ci bokk ndax daa a ngi xew démb waay lii tamit mbaa jàmm la yëglekaay bi ne bi gars yi seen mbégte ci mbedd yi la gars teg seen palang rëcc ci kaso bi lii vox populi ne gane Sénégal dugg nañ ci soir ba faw ginnaaw seen ndam li démb dimanche gi nu dég nag Angleterre la dajal ci huitième de finale yi Aliou Cissé el tactico ne mbiri nag fi mu toll nii amul laayam-laayami amul calcul da gañe dees wala boog ñu gañe la nga ñibbi ndax fi mu ne nii équipe yëpp a yam

delloo nañ njukkal sargal nañu Pape Bouba Diop ak ñi seen tur ci histoire football ci Sénégal li des nag mooy wekki étoile te loolu nag mën na nekk la tribune ne mission accomplie à moitié ci gaynde Sénégal yi ndax ku tëb dal ci benn xal des na beneen tëbin waaye nag xaw tuuti musiba am démb yàq xew bi ndax benn waaye bu nekkoon ci otoom moo perte contrôle nar a indi fitna gu rëy démb ci xaalu Ndakaaru yi ginnaaw bi askanu Sénégal gépp doon fësal démb nag jàkkaarlu nañu juge bi ci tribunal bu Mbour l'info ne ci juróomi garde corps yi kay ñaar yi bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen kër waaye ñetti ñi nag benn weeru kaso lañ leen fëgg ak alamaan Omar Ndione mi indi coow li te bokk ci APR ñaari weeru kaso lay tëdd ak alamaan ndaxte gars yi nee nañu problème yi yëpp lu ji njaak mooma GP Quotidien ne ñetti ci garde corps Ousmane Sonko yi démb yal bi dal na seen kaw waaye li gën a diis gën a tar ci daani ci kaw Omar Ndione bu APR la dal ndaxte moom waaji bu weesoo alamaan bi dina tëdd ñaari weer ci kaso bi libération ne Fulbert Sambou nag jébbal nañ ko boromam démb ca sëg ya nekk Fessé Lazare ci anam yu metti yu doy waar kàddu seede yu ne jëm na ci moom yëgle kaay bi ne en tout cas moom a daal gaay mer nañu bégguñu de Aminata Assome Diatta ci a kon daal jaaxle war nañu Aminata Assome Diatta leer ndaxte mbiri kay daaw war a leer par la force doole mbaam ba ñu xam dëgg Fulbert Sambou lan moo ko faat ak Didier Badji ci lan la nekk waaye loolu mooy dëgg waaye suur soo ne njabootu Fulbert Sambou kay seen xool ci boppam moo neexul ndax daa ndax ba tey ji amuñu dara lu leer ci li faat seen doom ji les échos ne ginnaaw faatu Aziz Diatta procureur na ubbi na ci information judiciaire ngir topp ala xam enquête ne Serigne Mbaye Thiam jëwni gu ñu denk wàllu ndox meeg ko mal mën a ginnaaw coow ndox li joli ci réew mi moo xam ci doyaay bi ak ci sellaay bi ba ci lépp kon lañu waxtaane démb ci assemblée nationale waaye li coow li bëri bëri sëriñ Thiam nee na contrat bi dox suñu diggante seen oo kenn du ko dindi day wéyandi de l'info ne député yi kay démb may ñu dara ak waa teg ak waa flexo ndaxte ñoom député yi démb lu ñu leen yàqu dañ ko fàtte ginnaaw ndox mu bon bi nga xam ne moo am ci réew mi ak diwaan yu bëri yoo xam ne ndox mi jotewu fa lii nag moo meloo démb député yi ci assemblée nationale geneen coow ak joli démb ci assemblée nationale lu yëg na ginnaaw jàkkaarloo waaye wi ndaxte moom député bi nee na du jéggulu mukk ba noppi tontu Cheikh Youm Khalifa Sall ak Ousmane Sonko critique ne député Ousmane Thiam moom daa salax ndigalu coalition wàllu Sénégal jëm ci vote budget yi bu ministère de l'intérieur moo Ousmane Thiam ci yëglekaay bi ne indiwuñ ma assemblée ngir may bloqué budget yi wala may bloqué état Sénégal donte na ci l'opposition bi laa bokk waaye nag foo mu xool dëgg la may def ci assemblée nationale alerte quotidien ne daanu gp Quotidien ne mooy lycée Valdiodio Ndiaye bu Kaolack fa njiitu réew mi ma Macky Sall jàngee nag foofee ca Kaolack yëglekaay bi ne en tout cas daal jàppale ne lycée bi daa màgget ba xobi te waxtu wi ne lu ëpp junniy nit seen bakkan mu ngi ci xottu gerte ndax taaxi bés bu nekk mën na wadd seen kaw ay waay lii tamit mbaa jàmm la ñu bàkku jëm ci làmb ji ak sunu làmb yëglekaay bi ne Balla Gaye 2 ginnaaw benn weer des jigéen mag Boy Niang 2 capacoli moom Balla Gaye 2 génee géej gi léegi lalu na ndax ñaari weere ngi dematul ci écurie bi këram tamit gaayee nomb samp fa sécurité gu mat laataa kenn di fa dugg di nga daj lu mu dul hôpital l'observateur ni musiba dëgg nag moom ca Kër saar ndax ay samba boy di ay agresseur ñu ànda doon agressé benn xale bu jigéen mag ji dikk ngir wàllu si ko agresseur yi nag bégu naaw naaw lañ ko jàmmu dee mais dangay seet loolu rek